Euh, ginnaaw bu ma leen nuyoo di sant mbooloo mi di nuyu ñëpp kenn ko ci nekk turam ak santam euh, deuxième édition bi vraiment mbégte la si ñun tey parce que tey jàpp nañ ni Kayar mooy gagné ci lu mu mënti doon Kayar moo ci gagné. kon tey jii bu yàlla defee ñu nekk ci deuxième édition bi la ñu waxoon ci première édition bi suñu borom def na matala nañ ko tey dinañu jëlaat yeneen engagement ci kattana suñu borom pour ci deuxième édition bi fa fi yéene def loo xamante ni mooy ci stade yi population Kayar ñoom ñu ngi dox mais taxawuñu. voilà waaw lan mhm. mhm. waaw boo gisee tey jii euh, sunu borom ci ndimbalal borom bi si la ñu li ñu digge woon daaw ñu am ko parce que noonu nañ leen daaw incha allah dinañu def grille de protection sunu borom def na weddi gis bokku ci ñu ngi xaymawaat di ñaanaat ki nga xam ni mooy sunu boroom incha allah bon ñu fas yéene am li nga xamante ni mooy stade boo xamante ni bu bu praticable la boo xam ni ba ci gazon synthétique am nañ ci xalaat ni ak suñuy partenaires yi ñu am bëgg nañu sottal loolu leneen loo waaw mais Kayar man toujours rek ne naa kayaar sama deret la mooy sama parti moom laay faral di wax li ñu mébét si Kayar bari parce que assainissement bi ñi ngeen gis ñuy tubaab yi ñu taxawal léegi ñoom dañu ñëw pour construire ñu ay classes ci CM bi d'autant ñoom am na benn projet boo xam ne ñu ngi koy def ak ñoom boo xamante ni si assainissement assainissement la jëm léegi ñoom taxaw nañ si pour commencer loolu kon loolu lépp ci mébét yi la bokk ak euh, li nga xamante ni am nañu ko ci ay partenaires yoo xamante ni benn lycée boo xamante. benn lycée boo xam ne euh, benn université boo xamante ni japonais yi ñoo koy def en collaboration ak ay sénégalais. bon ñooñu aussi vraiment pare nañu pour defal ñu lépp loo xamante ni mooy am ci université. jamono yi coow yi bëri ci Kayar. jëm tam ci euh, centrale à charbon bi nga xam ne mhm. euh, am na ñoo xam ne population am nañu ci d' accord. gis ñoo xam ne ñu ngi sol ay t-shirt mhm. ñoom d' ci euh, usine à boobu waaw xam nga aussi nit ku nekk fi sa xel tollu rek fi ngay waxee. nit aussi mënul am na ñoo xamante ni dañuy bañ loo xam ne xamuñu ko. mais aussi ñun ci politique président de la république ci li nga xam ne mooy politique énergétique ñun mënul di def loo xamante ni dafay jariñ askan wi ñun ñun duñ ci d'accord ñun moom adhéré nañ ci projet bi parce que saytu nañu seet nañu xool ak ay techniciens ñu xam ne projet bi amul dara loo xamante ni am na ay inconvénients ci nekk parce que tout récemment rek am na benn délégation boo xam ne dem na Inde bi mu demee ñoom bi ñu demee gis nañu nii vraiment la ñu fa gis ah, vraiment bu ñu sañoon mu am ci Sénégal kon du donc loo xamante ni dafay satisfaire population sénégalais di satisfaire sous région bi kon ñun bu ñu ko bañee dafa fekk dañ ko xamul te aussi li ci am li tax bañ bi mooy que xam nga nit ak alalam boo moomee sa tool nga moom sa tool nga xëy ñun dañ koy jël si yow loolu jafe-jafe la loolu mooy problème bi parce que à chaque fois nit ñi seen suuf saa yoo ko laalee rek ñoom dañuy gis seen bopp mais nag bu fekkente ne nii leeral nañu leen xamal leen li ngeen xamante ni moom la projet bi di jariñ bu boobaa aussi jàpp naa ni dinañu mën a vraiment vraiment yaakaar naa dinañ ci mën a mën a nangu bu ñu demee ba gis lu leer beneen bi aussi ñun dañu am benn partenaire boo xamante ni Mansour Samb mu ngi nii à côté moom xam nga vraiment lépp loo gis ci taabal ji rek moom moo ko fi indi kon du c' est un frère boo xam ni ñun ñu ngi koy remercier di kontaan si moom vraiment di rafetlu lépp loo xam ne xew na fi waaw. waaw léegi fii nag jërë jigéen ñi def naa lépp ah, Wally daal dugal na première bi tam. leneen li mooy monsieur le maire dafa jëlaat beneen engagement mu ne euh, li nga xamante ne moom mooy euh, subvention ASC e yi daaw dafa joxoon ASC e bu nekk deux cent cinquante mille. ren mu ñëw daal di yokk ko jox ASC bu nekk trois cent mille francs CFA Sénégal yi ñu dévalué kon monsieur le maire wàññoo da ngaa yokk jërëjëf monsieur le maire te ASC yi nga xamante ne tey jii ñëw nañu te boo xoolee jeu de maillot yi ñu may mais l'union sacrée autour de ce joueur qui va tirer c'est vrai que actuellement ni booy xool waa ji xaañ ah, Ousmane bii la waa ji defoon keroog dafa woon bàyyi fële ñaari joueurs yi mu jël élan dóor bal bi mu dugg ci ci la keroog maa maa ngi koy garage mu qualifié kenn nga kenn mu keroog. l'union sacrée autour du joueur. waaw. est-ce que l'union sacrée autour du eh, joueur. Eh, est-ce que eh. la woon keroog dina nekkaat tey jii. attention. Ah, voilà, s'il vous plaît, la sécurité. rajo KFM voilà est-ce que amul malheureusement voilà léegi nag ngeen jàppale euh, madame euh, le maire voilà euh, monsieur le maire ils sont tous là toutes ces on va remettre Dame Coupe à l'équipe vainqueur championne cette année